bu exceptionnel la balaa may sori ci wax ji dinaa leen euh, jottali nuyoo ak euh, ngërëm ak yéene d'un homme exceptionnel boo xam ne musuñoo organiser li nu mel te nekkul ci biir organisation bi wala sax moom mooy jiite organisation bi muy la président Bassirou joomaay Diakhar fay te mu leer ma tamit ni bu dul agenda bi ngeen gis nga xam ne ci jamono ji yeneen koy seen fële diggante Kédougou Saraya ba Bakel amaana dina doon def la surprise ndax it li suñuy charte tere mooy ku nekk président de la république nekk président wala secretaire général ci parti bi waaye suñuy charte terewul mu doon militant te le premier militant de ce parti s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar fay moo tax ma bëggoon lu jiitu ñu koy def ci assemblée wala ñu koy def ci texte yi ma bëgg fii par acclamation par acclamation ñun ñëpp ñu dëppoo ni def nañ ko président d'honneur du parti PASTEF mbokk yi laata may sori ci waxtaan bi dañoo nekk ci jamono yoo xam ne ñu ngi jëmmal lu am solo mooy xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jàngoro jooju ñuy tudde cancer lii di ko màndargal mooy lii nga xam ne kenn ku nekk ci yenn wala ñu bari ci yéen ñu ngi ko pingu seen dënn ñuy massawu mboolem seen ñi nga xam ne ñi ngi dund ak jàngoro jooju man yàlla nattu ma ma ay at ci gannaaw juróomi at ci gannaaw am na sama benn mag bu jigéen boo xam ne loolu daloon na ko mayor ko sama kër ba ni yàlla defee li gën ci moom muy lu méttee métti métti métti di feebar bu méttee métti métti métti moo tax ñun ñëpp ñu war a am solidarité ak ñi nga xam ne yàlla nattoo na leen jàngoro jooju waaye it di gën a soññ kenn ku ne ci ñun muy fagaru mooy di def ay dépistage di xool yaramam ba mun a teel a xam bu dee lu mel ni jàngoro jooju mu ngi koy waaj a song mun cee indi saafara bu loolu weesoo nag fas yéene naa waxtaan ak yéen. ci ñetti tomb waxtaanu tey bi dafa am solo moo tax ma bëgg ñu mayante nopp ñu dégloonte parce que li ëpp solo mooy tey bu ñu jógee fii message bi ñu bëggoon mu jàll mu jàll ba mat sëkk kenn ku ne mën ko yóbbaale waaye les million de personnes yi nga xam ne tey ñu ngi toog seen kanamu télé wala ñu toog ci seen ordinateur wala seen téléphone di suivre li nga xam ne moom la ñuy liggéey dama bëgg message bi jàll parce que Sénégal dafa nekk à un tournant Sénégal dafa nekk ci li ñuy wax selebe yoon ñu war a tànn nag yoon bu baax bi buñ ko tànnee defaru ba faw te yoon bu baax boobu moom président Bassirou joomaay Faye ak gouvernement bi nga xam ne man moom laa jiite ci yoon bu baax boobu lañu fas yéene teg Sénégal moo tax li may wax am solo parce que ñun rekk mënuñu ko mën nañu am gis-gis bi am yéene bi waaye bu askan bi wala li ëpp ci askan wi li ma yàgg a wax une masse critique bu ñu bokkul ak ñun gis-gis boobu te fas yéene ci ànd ak ñun dina jafe moo tax tey dina waxtaan ak yéen ci ñetti tomb waaye yaay booy yaay booy kon euh, secours yaa ngi toppatoo suñu yaay ju baax jooju ñu continuer waxtaan bi rek mooy fas yéene nañu waxtaan ci ñetti tomb yoo xam ne benn bu ne bëgg naa ñu may ñi ci nopp bu baax a baax a baax bu njëkk bi mooy bëgg naa wax tuuti ci parti bi tuuti ci parti bi waaye wax ci parti bi mooy weesuwul rendre hommage aux militants te maa ngi ciy ñëw ñaareel bi mooy wax ci tolluwaay réew mi tolluwaay réew mi ñetteel bi mooy wax ci li ñu dëgmal muy élection législative yi ñetti tomb yooyu rek laa fas yéene waxtaan ak yéen te bu soobee yàlla du gudd li ma bëgg a wax ci militant yi mooy dama bëgg ñun ñëpp ñu jóg taxaw jël quelque secondes pour rendre compte pour rendre hommage à nos martyrs muy quelque secondes de prière ñu ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bi kenn ku ne ci diine bi nga bokk ñu ñaanal leen bismillah